jàmm ci seen journal de l'arène mbokki téléspectateur Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen bëggee itam ah, di leen wax rek bienvenue encore une fois ci suñu journal de l'arène ma ciy ànd toujours ak kii di sama càmmiñ sama càmmiñ bi di l'incontournable Babacar Babacar nuyu naa la ziar naa la. Ah, maa ngi lay fay suma rakk ah suma soppe soxna Oulimata Seck waaw mais bon maa lay bëggee yow tamit bu baax a baax. waaw xam naa incontournable bi rek moom moo xaw a rëy mais bàyyi ñu nekk ay taali bi rek mais maa ngi lay kontaane bu baax a baax di la wax ne namoon naa la trop parce weekend bi yëpp gisante wuñu quoi dëgg la Babacar weekend bi yëpp gisante wuñu ah, ñu ñëw def tey suñu lundi def suñu relax nag waaw du mën a ñàkk ci la boo xam nga àddina tera nga àddina bët la mm-hmm. te xam nga mer mu bëri baaxul nañuy relax rek dina si jàmm. di xam en tout cas kontaan naa trop waaw ñu dem seetaani ji suñu revue des ma man it ah man danaa la tontu ndax man ku ma yëkkal xel ma yëkkal la gën ni nga simple tey ni def sa rouge blanc rek. xam nga merci di say jaaro yu ah doore kenn du yow. ayca ñu dem te ñëwaat. lundi 22 mars 2021 dañu ñëw kenn ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey dooreeti ko mu mel ne ki yëglikaay bi di sunu làmb tey xëtam mu njëkk lëm ci xëy fesal maanaam la nga xam ne nii moo waroon am bërki démb ci samedi ji fa nga xam ne moom moo di ca Pologne moo waroon dox ci diggante Bombardier mu Sénégal ak Podjanski ma nga xam ne moo dëkk ca Pologne di combat MMA combat ba nag la ko dox amul maanaam feebar boo xam ne moo mujj a dab wala aw mettit woo xam ne daal ci yaramam woo xam ne moo ko mujj ba tax docteur yi daal jàpp ne ko daal lii moom nu ñu ko booleeg def compétition maanaam loolu kon moo tere combat ba am mel ni ki nag mbir mooma ba mu amee coow la bari woon na lool rawatina fii nu ne ci Sénégal ñu naan Bombardier daa am kiris ak dafa def la nga xam ne nii moom moo di kiris ba ñu hospitalisé ko mu mel ni ki nag mbir yooya moom nañ ko doon waxe ak na mu amee bokkul maanaam daal comme yàlla ak yàlli Bombardier daal la ko dal foobere la boo xam ne wala loo xam métti la boo xam ne ci sa côté lay nekk tey tam bees ko toppatoo maanaam du doon loo xam ne luy yàgg luy wér la Bombardier moo tax moom ci boppam opéré wu ma kenn hospitalisé wu ma nañ ko ñaanal jàmm ndax moom itam mu ngi ci jàmm ndax mu ngi ñaanal ñépp jàmm moo tax daal moom waxal na boppam moom mi ndey mbili gi génn na fa nga xam ne moo di ci Equivox TV wax fa wax na feneen ak feneen daal xamal nit ñi ne daal moom mu ngi si jàmm bu baax a baax am na nag méttit woo xam ne maanaam doon na ko sentir boo ko docteur yi xoolee comme tubaab yi moom sport moom boo koy def dañuy jàpp ne da ngay pare cent pour cent maanaam ñu jàpp ne loola lu mu ndaw ndaw du ñu ko xeeb du a beneenu yoon ka nga xam ne nag moom moo engagé Bombardier fii ci réew mi di Gaston Mbengue war ko tëggal làmb xëy na tey di wax ca mbir mooma jàpp na ne daal digganteem ak Balla gay numéro de jàpp na ne loolee mënu caa yàq dara dara dara moom Gaston moom ne na tey lam xelam gën a daal ndax xam na Bombardier xam na ne professionnel la te itam la muy liggéey teg na ko ci aw yoon loolu mooy waxi ka xam ne nii moom moo di Gaston Mbengue keneen koo xam ne nii moom xëy na di wax ca combat ba Gaston Mbengue tëgg mooy Bekaay Mbay bu 2STV suñu père Bekaay daal xamle lenn la analyse daal la def ci 4 avril lam ca wax nag ne na kii di Eumeu Sène day nekk na mbër moo xam ne moom mbirum koor ak koor maanaam da caa aay lool dóoral ma dóor maanaam ab defante lu mu mën a mën a man la loolu la père Bekaay gis tey waaye jàpp na ne kon Lac de numéro 2 comme Eumeu daa mën a koor ak koor Lac ko war a war ne ko nag yow nag comme koor nga man li ngay jaay tey danaa ko jënd maanaam daal loolu la waxi wala boog loolu la Bekaay Mbay xëy tey wax ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb keneen koo xam ne bis booba ca la war a bëre muy jën kayre moom itam daal daa mel ni lu Modou Anta jaay bu bés boobaa jënd ko kese mooy li ko jik ndax su defee lu loola daal dana ami jafe-jafe maanaam kon combat ba moom ndam ca war yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw dinu wax lu meloon ca xale boobu nga xam ne moom moo di jéen kayre beneen xale boo xam ne génn na moom tamit di wax muy deux ziga deux ziga moom la mu xëy xam le daal lenn la maanaam daal fi mu nekk nii ne na ngay préparé bu baax a baax digganteem ak ka nga xam ne nii moom moo di Cheikh Super Jamono deux ziga daal ne na fi mu nekk nii maa ngi préparé te pare laa bëgg ñi nga xam ne moom préparé nañ lan banu pare mooy mbër ya nga xam ne ñoo àndoon ak bamb mbub ma nga xam ne mooy yor su la nga xam ne moom moo di fiis wala boog fiis muy mbir moo xam ne daal day former ay mbër ba nga xam ne buñ ci jógee dañuy am ay diplôme ngir nekk ay garde rapproché mel ni ki nag ñañ doon préparé bërki dem ci sam ji lañ leen doon jox seen ay diplôme ñu won ñu bàmba mbub ak aw photo moo ka nga xam ne moom moo di moor ba nga xam ne moo nekk ca les Tigres bu faas ba mbay gi yore yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci lu mel ni ki bu nu fa jógee tamit fan yi dem fenn la mooy record record tamit ñëw na ci mbiri Bombardier ak ka nga xam ne moom moo di combat ba nga xam ne moom moo di moom la waroon a bëre fa nga xam ne ni moom moo di ca Singapour te mbir ma mujj a yàqu loolu lépp yëglikaay bi di record xëy na tey ñëw ci am na koo xam ne tamit ab docteur la ñu koy wax docteur Babacar Ngom ñëw na ci mbir moom nga xam ne moo dal Bombardier jàpp na ne loolu day nekk na loo xam ne ni daal bes ko fajee maanaam ci ñetti fan jàpp man daal maanaam ci ngay war a mën a toog doo def lu jëm ci sport waaye nag bu ko passé moom jàppale man ngaa delluwaat ci sa langa xam ne nii moom moo di sa ay activité loolu la docteur bi gis tey ci record bu ñu jogee record nag Equivox lan fay dem fu lan fay fekk nag man maanaam terrain gaal gi jak sa fa tegoon démb deux millions cinq cent mel ni ki nag deux millions cinq cent yooyu moom boo bëggee dégg-dégg démb maanaam kuy dund làmb di amateur foo nekkoon génnoon nga tax mbir dem ba fa nga xam ne moo doon terrain ba attanatul mbir ma coow la mel ni bu ma la ko waxat lamb ja dem bay yàqu waaye mujjul yàqu fexe nañu ba organiser ko ba ñu bëree ko ba général Malika wane fa boppam général dal dimb daa mel ni moo doon buur di bummi fa nga xam ne moo doon ca terrain gaal gi ndax nag moo doon dicté ay luwaam teg ndawalam daan ñoom booy fay daan ñoom ëbbali ñu ne déet na waay mu finaalo ka nga xam ne moo di caaka fay mbot ko mbot moo xam ne nii rëy na lool loola mu nga faa xam ne moom moo di ca Equivox TV moo tax nag ka nga xam ne moo di Fallou Ndiaye ma nga xam ne moo jiite Ndiaye production moom tamit nee na comme moom promoteur la te itam li simple ku ne xam na ne bu yàggul demoon na ci Gàmbi nee na mbër yooyu muy ñoom général Malika ñoom Cheikh Tidiane Niang ak ñoom Boy Faye ñoom ñëpp daal Fallou Ndiaye nee na leen bu dee da ngeen koo man di ko jaay danaa ko jënd ba mu saf ndax sam samedi jiinu jëm maa leen di tegal la nga xam ne moo di ñeenti million fa nga xam ne moom moo di ca fa nga xam ne moo di arène nationale kon yéen ñëpp waaj leen ko pour samedi Fallou Ndiaye ne daal ñeenti million mook Ndiaye production lañ fay tegal mbër ya maanaam bés ba nag kañ ko jagleel moom mooy ka nga xam ne moo di Doudou Diagne Diecko ma jiite amateur Moustapha Mbeng ma nga xam ne mooy meeru Kër ma Massar ak kan ka nga xam ne moom mooy Benzelum ma nekk ca impôt deman mu mel ni ki kon daal fi mu nekk li moom gomis soo bëggee dégg-dëgg lamb ji jax na te ca yem de ndax bu bët setee ka nga xam ne moo di jax day demaat moo itam defe naa ne ci adresse wala boog ca gaal gi tegaat fa la nga xam ne moom moo di ay million kon fi mu nekk nii daal loo ci mën a dégg gars yi démb moom boo leen gisee contentement dëgg dëgg dëgg ngay gis ci ñoom waaye li am ba des daal te jara wax mooy loo ci mën a dégg lambi simple neex na waaye moom moo ngom la ngay tëgg waaye mbayang luum la ngay way macha allah kon daal waykati lamb yépp nuyu naa leen ñoom ña nga xam ne ñoom ñooy añee sax ñoom nday faatu aadama jëleeg ña ca des kenn ku ci nekk daal ci ñoom maa ngi lay ñaanal jàmm ak wér gu yaram ayca léegi dañuy euh, dellusiwaat ci jàngatum journal yi ah, dañ koy doxee comme ça su ne ak suñu quotidien bii di suñu làmb mm-hmm. Babacar tey euh, suñu làmb xëy euh, dikk ak ñun ci combat wu bombardier ak ki nga xam ni mooy Pudzianowski ah, mu doon combat boo xamante ni samedi lañ ko prévoir prévoiroon mm-hmm. mais mu am lu xew ci diggante bi maanaam kii di bombardier illa a subi une attaque d'appendice mu mel ni dañoo reporté combat bi Babacar. waaw ah, bien sûr noonu la demee parce que liñ ci am. comme ay xibaar yu leer jóge si Bombardier jóge si ay stafam euh, defe naa ne loolu mooy li mujjee am mais nag euh, dafa am loo xam ne ni mhm. ah yàlla maanaam ab jaam day bëgg quoi mhm. mais yàlla buur bi moom mooy dogal yaa ngi dégg moom amoon na yéene combattre ak ki nga xam ne moom moom mooy Pudzianski mhm. ba dem ca Pologne ba dara desul lu ñu war a jàkkaarloo ay quelques ay waxtu yu néew mais nag yàlla indi loo xam ne si yaramam benn douleur boo xam ne tere na tax mu mën jongante parce que tamit xam nga tubaab bi comme li may wax rek ñoom am na yoo xam ne duñ ko fawee quoi comme ni tey xam nga fii des fois sa bopp di metti sax nga forcé comme sama genre dem mhm. liggéey wala nangam voilà ne grawul mais ñoom xam duñ def yooyu mhm. tey bu doon Sénégal la mën naa leen Bombardier lii ko arrivé nii bu doon fii la ko arrivé mhm. boo saaga ne mën na combat taxaw des ñaari waxtu non da koy nëbb ba bëre ba pare a Mm-hmm. ba tey mu mel ni Bombardier waxaat ne moom ci boppam ñëw na ci li ko daloon ak li ci Sénégalais yi doon wax parce que xam nga dañ doon wax ne dafa crise bañ opeere kook hospitalisé ko moom loolu lay leeral nii quoi mu ngi dalal xelu ay supporteram quoi. aywa ba tey ci loolu rek ah Bombardier daal di ci euh, réagir ne mm-hmm. moom personne ne m'a opéré ni hospitalisé je me porte bien le Bombardier wax ndax euh, ñu bëri jàpp nañ ne dañ ko hospitalisé wala ñu opéré ko ci euh, métit googu mu am waaw parce que boo xoolee man kera ñi ma woo bari nañ trop bi affaire bi amee am sur le coup la ma laa commencé am ay appel ne Bombardier lu ko dal nangam sanga ma leen ah lu mel nan après ma ci par la suite jéem naa ko jot mënu ko jot parce que xam naa jamono boobu mënoo ko jot mhm. mais après naa ba jot ñu ko ñu ko jegeñ ñu xamal ma ne daal vraiment comme li nit ñi di wax noonu ñu bind ko mu siiw maanaam dañ ko hospitalisé dañ ko opéré yooyu amu ci yaa ngi dégg moom par la suite ci guddi gi génnal na boppam ku ne gis na ko ci micro Equivox wax na mhm. xam le na ne moom kon opéré wu ko maanaam mu ngi si jàmm benn douleur la woon boo xam ne ay médecins yi gis nañ ko xam ne lii jàpp ñu ne mën na ci compétir ñu ne ko kon appel bi dañ koy aj kon defe naa daal loolu mooy li nga xam ne ni moo ci am mm-hmm. ñu koy ñaanal wér gi yaram di ko ñaanal ñi nga xam ne moom mooy doomu aadama yëpp adversaire bi mu war a bëréel parce que Bombardier ku ne xam ne ne champion bu mag a mag la mais li ma la waxoon sànq mooy dikkaat foofu rek mm-hmm. bàyyi di wax Gaston Berger bàyyi di wax Gaston Berger waaye itam jaafur bi nga Gaston Beng Gaston Berger nga Saint-Louis université la mu mel ni Gaston Mbengue sax daal na ci wax moom tamit ne ça ne remet pas en cause son combat contre Balla Gaye maanaam Babacar loolu du ko teree du du ko teree euh, du tere ñu ñu ñu. ñu bëre ñu bëre moog Balla Gaye. mais bien loolu moo am parce que li ñu wax ne moo ko arrivé par rapport ak ni ñu ko déggee médecin yi wax ci borom xam-xam yi. Mhm. loolu yaakaar naa ne du ko tere mu kii parce que Bombardier ci boppam xamal na sénégalais yi ci boppam ne ne loolu moom du problème mhm. des un sportif de haut niveau day am ay douleur parce que day am ay métti day am ay blessure sax yoo xam ne da ngay am ay indisponibilité wu ay un mois deux mois te du tere boo dikkaate da ngay nekk ci forme kon defe naa ne loolu Gaston wax moo ci am te ñu loolu la ñuy ñaan parce que combat Balla ak Bombardier Sénégalais yëpp yëpp yëpp ñoo koy xaar ba tey ci Gaston Mbengue moomu. Mhm. Euh, dañ ci ñëw ak euh, combat bi mu tëgg. combat wu 4 avril. muy mhm. dox ci diggante Eumeu Sène ak Lac 2 kii di euh, Bécaye Mbaye également daal di cay wax. Mhm. ne la force de Eumeu Sène c'est le corps à corps c'est-à-dire que Lac de doit prouver contre lui Babacar. corps à corps daal mooy koo xam ne kon ku ñeme dóorante la. ñeme laale laale. exactement waaw xam naa ne daal loo ci mën a dégg Eumeu moom der la. ci niñ ko gisee muy bëri ay combat am yomb naa metti xam naa Père Bécaye boobu la def moo tax mu ne Eumeu Sène ku ñeme corps à la kon nag moom mu war a prouver loolu wan ko loolu nga yore dinaa ko lijjanti loolu nag balaay leer rek ñu yegg ca bés ba parce que li tax ñoom ñaar ñëpp boo xoolee ku ci ne bëri nga combat bu metti ñu gis ko mm-hmm. ñu gis ko ñuy ñaari mbër yoo xam tamit du ñu fooyee bés di ay mbër yu mag mais incha allah rabbi euh, soxna uli mm-hmm. la kat soreetul xam nga lu ñuy ñaan yàlla yàlla may ñu tal fekkeek wér gu yaram te jàmm am ba arbitre suuf la génn seen diggante da gis lu doy waar man maa la ko wax fii amiin ci 4 avril boobu tamit euh, ñu am war amaat beneen combat mm-hmm. di Diène Kairé ah. ñu ne moom il waaw bu nekkoon na ne de mooy lan maanaam moo mooy force rek mënta ñàkk naan daa war a gañe comme di sa mbokk la sa maanaam bu ne sa mbokk la maanaam yéen a dëkk parce que Médina waa Médina la jéen kayre mu mel ni moom itam loolu moom defe naa ne mooy li war a parce que combat bi mu mujjee mook Quench mhm. nit ñu baree baree bari mhm. amuñu ca li leen neex parce que façon ba ñu ko bëree mook Quench ba match bu combat ba niil mhm. moo tax tey bu dikkaatee dugg ci ku mel ni Modou Anta te am fu mu bëgg a dem di xale doon na papaam ci bëree defe naa ne tey ndam da koy war ci bii combat yaa ngi dégg te moom xam naa ne xam na ko mu ngi ciy liggéey moog estafam te moom la bëgg a wuti waaye ndax dina yomb foofu la question bi ne ndax ki mu ko seqal moo naqaree lijjanti moo naqaree defanteel muy doon Anta. dëgg la Babacar. Mhm. ay wax kii itam di 2 giga ne je me prépare très sérieusement digganteem ak euh, Cheikh Super Jamono. waaw waaw moo gën de ku jël lu toll ni combat kay euh, euh, Oli <laughs> booy boo préparé wu bu baax rek loolu mu wax moom xel nangu na mhm. waaw moom 2 giga. ay ca dañuy daal di jeexale sunu làmb ci li nga xamante ni mooy formation garde rapprochée yenn ci mbër yi. Mhm. donc ñu doon leen remettre seen i mel ni Kara ak Maam waaw mu mel ni loolu ki ko initié moom mooy Bamba bu di ab sénégalais boo xam ne mu ngi nekkoon Italie dafa dund daan liggéey ci métier bu garde rapproché bi mu ñëwee fii nag gis ne mbër yi des fois souvent dinañu bëree

le record. Mhm. moom itam mu daal di ñëwaat rek Babacar euh, ci euh, diggante Bombardier ak euh, Pudzianowski. waaw ca Pologne. waaw mu mel ni foofu li fa am rek mooy coow la fa mujj am ci blessure Bombardier wala boog li ko doon metti ba tax combat ba ñu annulé ko muy loo xam ne yaakaar naa ne rek. kenn ñaanu ko woon kenn bëggu ko woon parce que tamit bëggoon nañ ñu jongante ñoom ñaar ñaanal loon tamit suñu doom muy Bombardier ndam mais malheureusement yàlla jëndi na li gën parce que jaam bi day sabablu rek mais yàlla mooy dogal Euh, ci wér-gu-yaramam ba mu ñëwaat Sénégal ba mën a nekkaat si combat ak Balla Gaye comme li ma la waxoon sànq rek ngi leen di xaar ñoom ñaar ñooñu. incha allah mhm. kii di euh, médecin ba di docteur euh, Babacar Ngom mhm. daal di cay joxe ay explication moom tamit. Mhm. ne trois jours ba une semaine d' indisponibilité d' indisponibilité lay am maanaam ñetti fan ba une semaine yoo xamante ni da koy noppalu du def dara. waaw yoo xam ne du def dara ah kon loolu moo lay wan ne kon. ah loolu te parce que tamit mbir bu la naree téye ñetti fan ba jàpp semaine ah jàppal ne kon loolu lu metti la ci yaram kon defe naa ne ah bu toogee ñetti fan yooyu ba jàpp semaine ba jotaat boppam naa normalement ba médecin yi joxaat ko ordre mu continuer ay entraînement que tamit wax ji lu mu bëri bëri bëri defe naa jox ñi war a wax ñu wax ak ñi war xam li ñuy wax ñu wax dafay ëpp solo du jox ñu mel ni Babacar te docteur boobu wax ab médecin la xam na li daloon Bombardier moo tax moom moo ne ñetti fan ba jàpp bis bu dellu si maanaam une semaine. waaw ci lay toog yoo xam ne du def dara. dëgg la Babacar euh, voilà loolu moo nekkoon dernier élément wu record. Mhm. mu mel ni démb euh, ca terrain gaal gi. 2 mhm. euh, millions yañ fa tegoon 2 millions 500. te mhm. Jax tegoon ka fa. général ki di général Malika moo ko mujjee jël Babacar. waaw dafa mel ni mbiri na neexoon na. taxaw naa non waaye waxuma la tam comme dox sa bën saaj bëri démb. <laughs> man la ma jaaxal mbooloo moo na mu bëree mhm. ak mbëri yi ak animation ba muy loo xam ne sénégalais dañu namoon làmb uli euh, mhm. démb boo ñëwee teene gi maanaam mbir yo xam ñun ña fa dem mhm. gis mbooloo mi xam nañ ne loolu xajuloon foofu vraiment mais heureusement ba nga xam ne publicu làmb am nañ discipline parce que làmb ji à tout moment mënoon na yàqu ah. boo seetaanee vidéo ci Equivox à tout moment na yàqu mais nag fexe nañu ba organiser ko ànd koog ñi nga xam ne ñoom ñoo di le président Manga 2 mi yor lit ki nga xam ne moom ñu jiite CNG mu nga foon Libéra Sène ak ñoom Sitor Ndour ñoom Malick Ngom ñu yor arbitrage yi ak staff bi yëpp ak waa làmb ñëpp jàpp ci ba mbir mi ñu fexe ba ñu bëree ko ba mu jeex ba ñu finaloo nag général Malika finaloo caaka fay daan ko yóbbu mise bu mag ba mise bu ndaw ba ka nga xam ne moom mooy Cheikh Diagne jël ko tamit mu doon poilé sa ba mu nekkoon bés boo xam ne démb daal vraiment li ma la mën a yëgal neexoon na de <laughs> xam na loolu ñuy félicité général Malick en tout cas ñun ñun metti nañ lool la ñu luppee bés ba mën ak ami waaw waaw ah bii yoon di ngeen ñëw <laughs> aywa mu mel ni nag mbapat gi mbapat gi jeexul ba tey ah hmm. day continuer samedi 27 mars incha allah kii di Fallou Ndiaye teg na lu toll ci 4 millions de francs CFA ca arène nationale Babacar. loolu dana rëy 4 millions. loolu loolu loolu lim maa man est-ce que doo ma wutal sër ma dem. baadu man sax ku ma fa dëgg ne ma. non da nga loolu kay ñëpp a ko war a teewee parce que Fallou tamit ñu koy féliciter par rapport ak loolu parce que tamit moo lay wan ne rek làmb ji fi nekk nii daan na takkar naa ndax ñu jóge ci 2 millions 500. Mm-hmm. dimanche démb yow nga ne di nga ne 4 millions fan. arène nationale mhm. drapeau du janjeeko ak ñoom benn ak Moustapha Mbeng meeru Kër Massar defe naa loolu dulu ndaw kon defe naa mbaru lit simple fi mu nekk nii moom lu ci waaye doon jooy fi mu nekk nii say rox wañ na fer ndax 4 millions nga fa te bu bët jàkk si day ñëwaat kon daal ñu waajal samedi incha allah rabbi fa nga xam ne moom mooy ca euh, arène nationale di nuyu Fallou Ndiaye ak mi rawatina am di moom yàlla ñu ci yàlla yóbbu ci jàmm di nuyu euh, suñu téléspectateur u TV yëpp yéen ñi ñuy béggee ci seen euh, JDA seen journal de l'arène ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu également suñu caméraman bu baax bi suñu caméraman bu exemplaire bi mën liggéeyam lool <laughs> nag macha allah ñu ngi lay bu baax a baax di leen sant di leen gërëm Babacar looy nuyoo waa di ñaan yàlla jàmm parce que man à tout moment rek yéen damay wax ne que jàmm yàlla nekk ko yàlla lay def ci àddina bi rawatina suñu réew du Sénégal di la ko ñaanal di ko ñaanal képp ku ñuy suivre rek foo mën a nekk parce que ñi ñuy suivre am ñu seen ay fay ah mhm. maa ngi wax ñoom Serigne Ndiour ñoom Fallou Nia mhm. ñoom Tuuti Yaay Sarr ñoom Khadiros ak ñeneen ñi nga xam ne xam nga ñoom Balla Gaye xam nga ñu nekk Portugal waa Maroc waa Afrique du Sud waa Côte d'Ivoire ñoom Seydou ñoom ñëpp fu ci waaye nekk nekk Sénégal nekk à l'étranger ñu ngi lay bëggee Cissé ca Brésil ma ko fàtte mais faw ma dem ba marché tamit parce que Maroc bi ngay wax tey ki fi génn mooy Aliou Bouyankaaw nekk jaaykatu yére nekk ca marché Thiaroye di xale bu baax macha allah nekk taalibe Cheikh maa ngi bu baax ba Aliou Bouyankaaw tey moom génne fii di la nuyu tamit di la ñaanal jàmm di nuyu Seyna bu baabu mële borom Géejawaay di jaajëfal Gomis di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy staff bi nga xam ne wala ñoom ñoo nekk ci kër gi nga xam ne mooy Equivox rawatina ku mel ni xulle moom tamit di ko nuyu macha allah xale bu am teggin mais di nuyu tamit yàggamaar ma dafa metti yaa ngi nga nekk ci 16 heures ba 23 heures loolu metti la kon yàgg tamit jërëjëf di nuyu groupe bi yëpp di ñaan Sénégal yàlla na yàlla def jàmm.